mais naturellement il faut qu'il y moo tax révolution la bu dul wax turam qui ne dit pas son nom. Oui. mais en réalité c'est une c'est une révolution. Hmm. li Sidi Lamine Niass doon wax parce que dañoo ne Sénégal. tool na foo xamante ne ci li nekk révolution rek moo ñu ci moo ñu ciy génne. parfait mel ni wax jooju moo ñu moo ñu dab tey. mais ci lañ jëm ci lañ jëm cest à diir que fii réew yi toll te ñun ñu faa toll. Hmm. fii fii jamono toll te nanguwuñu faa toll bootu ko yàgg gi moo taxoon léegi même ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu diine. Hmm. képp ku fi nekkal diine ak daraja joo man a am te say wax dégguñu ci loo xam ne lii diine ci ëpp nit ñi dañ lay bàyyi ah bi ci ñoom réalité la man maanaam maanaam civisme à la à l'aveuglette ñu koy waxee dem rek nii loolu moo amatul danoo léegi voilà yeewu googu nag àddina bi ci boppam mooy yeewu yóbbaale bi sëriñ Cheikh Tidiane si ah, yàlla na yàlla yërëm ko def rahmatullahi alayhi wala boog radiyallahu taala dafa wax naan hmm. il faut ñu distinguer deux nit ki dëng ak ki jamono dëng dal ci kawam. ah waaw. ya am na différence kii moom naturellement dafa dëng am na koo xam ne kii kenn gënu koo baax mais réalité socio sociétale yi muy dund moo dal ci kawam ba muy def lu mu war woon a def mu ne kooku dundul mu ne kooku dëngul mais mais jamono moo dëng dal ci kawam. léegi pour le moment xale yi fi ñu toll nii. du hmm. du du dañoo dëng de réalité bi moo dëng. yóbbu leen ci vague boobu la. léegi yee boobu ngay wax noonu ni dañoo yeewu fi mu ne nii ba dara mënatu leen dañu gën a exigeant bëgg la daan xew bañ a xewati kan moo leen dimbali ci ba ñu yeewu à ce niveau. parce que sànq dégg yaa ngi wax discours. bu demee ba am ku ku ko incarné ak yu mel noonu kooku kumu. waaw mais xam nga loolu mën na nekk pratiquement boo xoolee révolutionnaire ñi révolutionnaire ci Afrique yëpp mën naa la ci wax cinq révolutionnaires en passant par Thomas ñoom ñëpp ban tàmbalee xare yi dañ leen a topp. parce que li ñuy wax moom moom maase ak seen jamono moom lañ mën a dégg. Hmm. borom xam-xam ba nee na nit kenn mënu koo mag ci jam ci at ci ko ci at ba pare ko ci jamono mënta nekk. Hmm. nit nga mag ko ci ay at magaat ko ci jamono bu muy dund mënul nekk léegi nag soo jëlee Thomas Sankara. entre parenthèse ñu ñu dugg foofu un di see Thomas xam nga ñan ñoo ko rey. Hmm. da nga ne euh, Thomas Sankara Blaise Compaoré moo ñëw rek rey ko nii. loolu la ñuy fëral non Mitterrand. François Mitterrand ak Houphouët-Boigny ñoo ko rey c'est ça la réalité parce que Burkina Faso lu mu tuddoon Haute Volta. Haute Volta. voilà moom bi mu ñëwee na léegi nañuy def lépp loo xam ne lii dafay nekk produit local ñu def consommer local def révolution ba noppi nag léegi mu indi benn système boo xam ne bii dafa ne tubaab bi lii ñu man ñun suñu sous-sol yi man nañ koo def Mitterrand da ko premier discours am dafa toog na ko da nga nekk xale. Hmm. Mm. alors que Houphouët Boigny était présent à l'époque te moom France Afrique bi ñuy wax ni moom moo ko doon incarné au niveau de l'Afrique mook Senghor loolu moo fi desandi ba léegi lëkkale leen Kadhafi oui quand il voudrait qu'il à l'époque créer la monnaie africaine mu ne monnaie africaine bi su ma ko créer siège bi maa ngi ko yóbbu Cameroun boobu lañ ko rey donc révolution boo gis même même politiquement parlant hmm. il faut nga indi lu bees ca biir lu bees loolee ña fi ña jamono teg sa morom épuisé ko il faut ñu def face ak ñi ñi bañ loolu am fi. Hmm. loolu mooy c'est le cas du Sénégal aujourd'hui ku koy incarné si on prend si prenons l'exemple de Ousmane par exemple Ousmane Sonko lu mais Ousmane Sonko dafa bind benn livre xam nga nu mu ko tuddee. solution eh, avec S. mënoon na wax rek solution point mais dafa def solution avec S cest dire que plusieurs solutions dans le sec secteurs yi nga xam ne ñooy ñooy coiffer suñu économie socio-économique politique sociale et tout ça. mu dem ba ci place de l'obélisque daal ne solution baa ngi ni wàccee programme am ne man lii laay def ban homme politique moo ko fi def kenn defu ko fi ku dul Ousmane Sonko. Mm. <laughs> mais damay damay wax li nga xam ne. mooy def na waaw les faits waaw les factuels mu def ko kenn deful cas programme bu mel noonu. Mm. mais man moo tax su ma déggee ñu naan euh, Ousmane Sonko nangam ak nangam dafa violent mais c'est fou. ah ah oui c'est archi faux. ci li ñu teg yëpp si ndoddam. waaye c'est archi no non. pas li ñu teg rek ci lépp ci mboddam du dëgg. Ah. mais dama ne Ousmane Sonko en tant que Ousmane Sonko. il n'est pas violent. fan nga wékk loolu. très fi ma ko wékk mooy tooñ mënta passé tooñal. ra nañ def benn lecture historique en 2016. Hmm. Ousmane Sonko a été radié completement de l'inspection ci ci presse bi la ko yëgee mu def fa 15 ans kenn mënu ko topp ci dara Ousmane Sonko. mënoo ko taqal dërëm boo xam ne bi sàcc na ko ñu dàq ko dàq surtout simplement parce que daf doon def ay révélation yàlla mi dara mille teewul 2017 ñu fal ko député lañ doon xam daf doon révélé faf na mu toog leen ko wax nag faf loolu dogalu yàlla la mu leen ko wax ci assemblée nationale bi ñu ne kii am na mbooloo mu ko nar a topp mais il faut ñu jóg ci ay moom ci ay mbiram mu def meeting bu nganda nganda def ko Kër Massar ñu rey benn militant Mariama ana plainte ba te sans suite waa léegi loolu loolu loolu du loolu du violence qui ne dit pas en réalité son nom psychologiquement dàq nit ki fonctionnaire boo xam da nga dem ba def naam jàng génn génn ci école magistrature yi am xam-xam ñëw def 15 ans di inspecter ay nit mënoo lekk ñaar dërëmu kenn ñu jekki jekki rek délibérément nit bon pas délibéré mais da ngay simplement lan moo tax affecté wuñ ko Kédougou lan moo tax yóbbuñ ko Tambacounda. faute professionnelle la ñu wax. ñu dem waaw waaw justement ñu dem ñu dem dàq ko. ñu téyewul làmmiñam mais. Lamine bu doon Lamine la ñuy dàq kon Abdoulaye Wade ak Ndiaye lañu njëkk dàq lépp loo xam ne son Sonko wax na ko bañ jàpp ne musiba la ñu nekk ci kujje politique yi de Mamadou Dia Lamine Gueye Senghor Abdou Diouf wax nañ ko te defuñu ko te mën naa la ay tas d' exemple yoo xam tu sais yow yow am na am na ku fi mas a nekk président de la république xam nga lu mu waxoon. Hmm. dafa ne woon élection yi su fekkente ne dañ ko triqué yàq ko nangam ak nangam je vais transformer la rébellion Casamance casamançaise en guérilla urbaine. loolu lu ko gën a garaaw am da ko ko fi waxoon mm. mais reyu ñu fi benn magistrat diñ ko waa PDS est-ce que dafa tax di Diouf dàq dàq kii boobu dindi affaire boobu donc tous ces faits soo ko boolee ak lu mat sept plaintes yoo xam ni mi ngi ci table justice bi te waa Pastef ñoo déposé plainte yi de mais kenn tontuwu leen léegi nag kenn ku ne li nga am moom ngay demee marché. lan la dafa justice bi moo tëddeewul njaaxaanaay. non lu mu wax ne moo tëddeewul njaaxaanaay wala tëddee na njaaxaanaay mais Sénégal ku fi yeewoo tey jii man ngaa xam ne justice bii moom. Hmm. wax dëgg yàlla euh, la yàlla xam doy na. ci politique yi. ci waaw ci politique. parce que parce que nit yaa ngi dem. tribunal di doxi seen soxla muy sotti. oui des personnes lambda bu mel ni ñun. wala ñi ñu bokkal mais ci politique bi xëy na moo gën a fës. mais parce que justice bi dafa mel ne dafa dañoo dem a dem ba mu yàgg ñu ñu lambaale wala ci politique ci biir moo tax le cas Adji Sarr c'est un cas politique purement politique. Hmm. oui combat politique rek la mais léegi bu dee du politique lu mu doon. léegi des Sénégalais lambda ñoo am problème nga ne kon dañ koo sës ci mbir bi moo tax la mu am rek loolu la def. comment Ousmane Sonko. oui li nga relaté ci ay fait fi mu jaar. li ñu ko teg ci violence. ba mu si yegg moom finalement la mu am ci jumtukaay. waaw loolu la fippoo loolu la fippoo. waaw comme léegi comme waral ba la ñu teg ci kaw ñu teg ko ba tey ba nga fël. mais l'islam dafa wax ne buñ la bëggee rey yuuxul. Hmm. c'est une façon de parler quoi. li nga am mooy c'est c'est de bonne guerre li mu am mooy peuple Sénégal mu wóoleel te moom sa sax peuple Sénégal yëpp ay ay ay ñu ko bëgg la woo. Hmm. ne nañu résister. benn benn instant Ousmane Sonko mas naa wax ne képp kuy saaga wala ngay wax yu mel noonu bokkoo ci. bokkoo ci man mais am na yeneen parti politique yoo xam ne am na ñu fay nekk di saaga. am na ku toog ci benn télévision ne Ousmane Sonko mii dañ ko war a rey. waay hmm. kooku dañ ko waroon fekk foofu jël ko. Stapha ngi dox ay soxla waaw c'est-à-dire loolu lépp nag bu yàggee psychologiquement. Hmm. yow da nga naan léegi tamit man tamit naa fippu. wa in taifataani minal muminina damay faral di dégg Ousmane Sonko di ko faral di jàng mu ne alxuraan mooy wax mu ne ñaari kuléel bu ñuy xeex nee na nee na bu leen wax naan kii moo tooñ ak kii tooñul nee na defar leen islaax seen diggante fa in baxat bu fekkee ne dafa am koo xam ne dafa ëppal moom ba kii ñu ne ko ñu teg ko ci yoon yi ba lànkee ñu duma ko hmm. loolu alxuraan a ko wax léegi lan moo tax sauf que ni ñu koy méngaleeg république bi ñu ne comment nun koy méngaleeg république bi ñu wax ni dafa am ay règle am yoo xam xëy na booy convoqué tey islam ak na muy hmm? souvent dafay heurté réalité république voilà léegi nan la ñuy voilà mais même boo ko heurté wul am na yàlla côté moral justement verset bi mën naa même bu ñu ci dindee côté religieux yàlla côté hmm. moral alors moo tax nous sommes dans une république laïque je suis d'accord avec toi loolu ñun ñëpp xam nañ ko mais euh, wolof nee na ko demul gànnaar tamit xam ne guddi est-ce que yaakaar ngeen ne tey jii mën nañu wax ne musiba naaru laay yépp Ousmane Sonko ko def cela veut dire quoi en d'autres termes moom mooy ne kon kii bu faloo day taal réew mi naka la nekk président de la république ba pare di taal réew mi est-ce que nangu na ko est-ce nangu na tey Ousmane Sonko di def campagne woo xale yépp ñu topp ko mu leen di wax naan sama système mi ngi nii sama livre mi ngi nii lii laa bëgg lii laa bëgg a def ñu ne kii musiba la bu faloo day taal réew mi loolu daanaka doon nañu ko Ablaye Wade. loolu ko wax lu xew kon. lu ma bëgg wax moom mooy ne. il n'est pas il n'est pas violent. dañ ko diaboliser. dañ ko il y un combat politique ki ne dit pas son nom c'est l'affaire Adji Sarr qui a été complotée de tous bords bi ni ko defee mooy xëy na mënoo ne diwoo ko def wala Demba ko def mais état dafa am doole ñaari sénégalais lam daa nga dégg ci directeur de société ñu dàq ci ab gendarme ay procureur dugg ci. léegi sax dem nañ ba combat bi léegi c'est comme un combat crypto personnel entre ab Macky Sall et ak Ousmane Sonko vous voyez alors que affaire mi ngi normalement dans une république normale. Hmm. kenn war woon a dégg sax gouvernement bi ci affaire affaire Sweet Beauty seen yoon nekku ci woon bu fekkente ne rek dañ ko jaaroon. ca ndorteel ba loolu la ñu wax de nee na xëy na li Ousmane xëy na complot bi Macky Sall la loolu leen ci dugal. mais waaye su doon daal lijjanti boppam rek ca lañ ko tuumal. xëy na ñoom seen yoon newu ca parce que dès le début bi jotee ci yëf yi moo d'ordre bi moo nekkoon sunu yoon newu ci. waaye Ousmane xëy. Ah. ne Macky loxoom génn ca. ay nitam naka noonu di tudd ay tur ñoom it ils étaient obligés ñu indi la réplique xëy na moo leen indi bi fii mais bu du woon loolu seen yoon newu ci. waaye yow bu ko seetaan rek. mu kon ne di la tudd vraiment sa yoon newu ci. waaw ah. man Pape Ousmane sa yoon a ngi ci te sa yoon newu ci bàyyi ma rek. am na nu mu lay tuddee di nga. xam ne teggi tuuma waaw waaw te nga nekk kilo da nga naan naan tuuma gi président Macky Sall def na ko ci neneen. Hmm. ba mu tàmbalee da ngaa déggul Macky wax ba ci affaire ku ko ku mas sa dégg fu ci Macky Sall waxee na ma ko andil. mus koo tudd de. ko sax tudd. yow nag moom non il est il est terriblement intelligent <laughs> ce gars-là <laughs> le chef de l'État. ah oui ku dégg problème mu Ousmane Sonko ba mu tàmbalee ba léegi Macky Sall yéey ci yàbbi. moom même bu dul problème bi sax da man. mosuma fu mu ko tuddee non xëy na mën naa wax ni kii la sécurité danañu. jaral ah, ah. mais problème mu si dootul kenn du ci dégg Macky Sall. waaw léegi léegi léegi. mais na mais nag. am na ay euh, ndaw am na ay ministre waaw voilà léegi boo jógee ci kër nag. waaw waaw na ñàkk déggoo ak. kilifa mais parfait très bien li ko waral li tax nag xel xaw a tey. Hmm. ba Ousmane Sonko ne affaire bi complot la mooy dafa am lu ci xew. ñu hmm. jàpp ñooña am leneen lu ci xew ñu bàyyi ñooña. ah, ah waaw. <laughs> loolu loolu kit mooy wax naa déjà ay plainte yoo xam ne ci Kër Massar. sept plainte xaw ma huit waa Pastef déposé nañ ko ci taabalu gars kenn waxul ci plainte yooyu la te gars yi leen la ci kaso biir. nangam waa waa waa système ñoo liggéeyu contre koo xam te ne dafa xëy rek bëgg leen a nax saay. noonu nga ko déggee saay xam nga xam nga nag euh, ku sa parce que buñ la toppee way buñ toppee sa raisonnement loolu la ñuy jox. non non xam nga boo nekkee ci opposition am doole. c' est tout à fait normal amul c' est de bonne guerre il faut que tamit yi jël seen ay mesures. Hmm. pour xeex xool nu ñu koy jéem a éliminer mais politiquement. nañ hmm. ko def Hmm. Hmm. Hmm. waaw. waaw bësër rek bu bësër mu ñëw waa kay <laughs> xam naa. waaw sa loxo beeku laal waaw. nga ni l'état l'état même dafa tombé ci piège yu gars yi. parce que foofu mënoon na faa bañ a yegg ak ñoom. la preuve ma jox la pour wax la ne la. gars yi parfois bu ñuy xeex dañuy xeex a xeex ba réer ci biir xeex ba. gis nga siège yu gars yi ñu tëj nii. mais juridiquement parlant. Ousmane Sonko dafa nekk dans un état de présomption d'innocence parce que dafa am yeneen yu ñu tegaat ci ndoddam procureur bi ne nañ ko fa léegi yóbbu ko fële ca kaso ba téye ko. Mm. kon àttee guñ ci fan yi lu génn projet il faut mu taxaw il faut ñu il faut ñu àttawaat ko waaw léegi est-ce que mënuñu woon a bàyyi ba loolu lépp pare ñu soog a tas par huit huit huit éléments yooyu yëpp waaw xaw ma seet na ko lii lépp yaa ko def su andiwul preuve yu wane ne moom defu ko ñu ne ko léegi nag yow vraiment yow tu es en danger potentiel ci société bi dañuy te siège li ci Abdou Karim Fofana wax dalaa doyut man déggin bi dama am problème parce xam nga soo tuumaale nit ne ko indil preuve sa man mi la kii kay war naa am luy firnde ne man maa la wax lii yaa ko def. waaw man maa war a wëri. non non non xam nga bi loolu la wax sax li nga wax nii loolu la wax ma xam dañ ko waxee na ko bi ko avocat yi na ko nii lépp di kii a non non j'ai des yoo xam ne doy na ma pour hmm. mais preuve yooyu xanaa dañ ko mas a wane ji léegi lu tax bàyyi wuñu ba wane ko doog a doog a bi ak cette rapidité là comme de cas de Khalifa Sall man loolu moo a jaaxal gars yi lu tax ñuy defalee noonu. Mm. c'est tey mu ngi ci euh, kaso. Mm-hmm. état de santé dégg nañ tey euh, avocat yi wax si euh, ci li nga xamante ne nii moom moom moom lay dund lan nga koy digal. noo xam nga Ousmane Sonko. parce que bu dee bañ moom moom dépassé nañu cadre bañ ñëpp gis nañ ne day bañ. Ah, mais tey ci posture bu mu nekk lan nga koy digal. Mm. li ma koy digal mooy il faut ñu nangul ko li koy nangul ba pare doo koo digal. kan moo koy nangul. ma askanu Sénégal nañ ko nangul yi muy. ay nitam nangul nañ ko. mais yow ñi fi nekkal tey am problème noonu laa ko mën a. tuddee non ça li tuddee nangul ça dépend ci li ma tuddee nangul. nangul ko nit nit bañ bañ bañ xam ne borom fit la. waaw lu ko nit nit nit bañ xam ne borom mbooloo la. lu ko nit nit kontoor xam ne jàmbaar góor pire la. parce que moom kopp dong ci ndum moo fi incarné une opposition radicale. wax ma ci kujje politique bi kan moo fi appliqué une une une euh, opposition radicale ba ba ñuy toj vitram yeeg ya ca ajoog barricade de këram mu dem te discours am mos koo changé. Mm. kooku jàmbaar pire la. léegi nag jàmbaar googu mu jàmbaar xam nga grève de la faim. Mm. l'islam moom rafetlu wu ko ah. ça il ah. faut le dire ah d' abord de prime abord loolu. mais xëy na moom jàpp ne na forme de combat la boo xam ne bii peut ban genre communication la boo xam ne day wane mbañteel gi ngeen ma bañ wala li ngeen ma teg day wane na naqar bi dama koy wax teg ko sama bopp pour wan leen na leen li lii du dëgg mën nañ ko man nañ ko am ci boobu boobule mais képp ku koy digal. Hmm. defe naa sax moom defe naa ni deful grève de la faim totale comme ni ko ministre bi waxee. Hmm, waaw nee na ndekki na de waaye. samedi samedi waaw. mais ay ñoñom nee na loolu wéru. xam nga xam nga nag Ismaïla Madior Fall moom ay waxam moo xiinu subaayam waaw bu sàqee xamoo dana taw xamoo du taw xam nga affaire moom. tubaarkàlla mais ndekki na sax waru ndekki na sax waru ko fa war a wax c'est que ni man man nee naa le gouvernement Sénégal am problème de communication. waaw du waxam. waaw loolu du waxam. ndekki na ak añ nag. joxe bi moo bëri moo tax. mu jàpp ne jot na mu leer même souci de transparence également est dafa mas a wax ne tey damaa ndekki. wala dafa wax ne man damaa dem seeti Ousmane Sonko du citoyen la comme moom te moom mi dana seetu ko ba xam dana ko dégg